qalbi lahu fi itaab al-jismi takraaru li'annahu lil-hudaa wan-nuuri jarraaru qalbi lahu fi itaab al-jismi takraaru li'annahu lil-hudaa wan-nuuri jarraaru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 di leen ñaanal jàmm te ko sàkku ci yéen di ñaan suñ borom subhanahu wa taala defal nu jàmmi àddina ak àlaxira ci barke Seexul Xadim kon nu fas yéene dikkaat insha allahu boo xam ne noo ngi fii ci barab bii di am doon jataay boo xam ne li ëpp ci liñ ci waxal sunu bokki soxna yi waaye teewut góor mën na ci jariñu ak keneen koo xam ne suñu boom subhanahu wa taala nam a ci sag jariñu doon jataay boo xam ne jataay bi laayanti biir la ngir xadis boobu yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama waxoon addiinun nasiha lillahi wa li kitaabihi wa li wali aimatil muslimina wa ammatihim doon jataay boo xam ne jataayu laayanti biir la ndax diine moom laayanti biir la laayanti biir alquran karim wala ngay laayanti biir suñ boom subhanahu wa taala laayanti biir alquran karim laayanti biir yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama waaye laayanti biir kilifay diine yi waaye laayanti biir mboolem jullit rek mu mel ne sunu jotaayu tey kon noo ngi bëgg jëm ak ci dëgg-dëgg ki nga xam ne day wuti jigéen ana ci jigéen ñi la war a taamu ci jigéen ñi ndax li alquran karim wax wal baladu tayyibu yaxruju nabatuhu bi izni rabbihi wallazi xabusa laa yaxruju illa nakida kazalika nusarrifu layaati li xawmin yashkurun ki nga xam ne dafa am dafa nam ma am njaboot bu baax na xool jigéen ju baax mu takk ko ndax eh, cosaan day feeñ ci digg digg mbir moo gisee ak cosaan def cay baax ba tax na boo gisee jigéen ju baax nga jël ko ëllëg mën nga ca am doom ju baax ëllëg jigéen ja nekk lekkool boo xam ne jipp doom jur rek day doon doom yoo xam ne dafa génn ci l'école bi nga xam ne l'école bu am njariñ la bu mën a la comme ni ko arab bo waxe ci xasidam googu tudd al ilmu wal axlaaq al ummu madrasatun isa adataha ni dafa doon wax am solo joo xam ne euh, du nu tàyyi mukk di ci dellu ndax dafa méngoog lii alquran wax wal baladu tayibu yaxruju nabatuhu bi isni rabbihi ay wallasi xamsa la yaxruju illa nakida bu ko defee àddina toll foo xante bi yàqu-yàqu yi bari na lool te it li yàq nit ñi yomb na lool te it ñi yàqu itam bari lool ba tax na boo ci bëggee mucc nga bëgg boo amee njaboot suñ borom subhanahu wa taala def leen ñu nekk ñu tege ci siratal mustaqima fa nga koy jiite mooy eh, tànn leen way jur ndax tu caageen doom boo ko yar dangay ngay rek ba mu juddu wala nga bàyyi ba mu xàmmee nga door ko yar déedéet soo yar ba mën naa jafe lool ci yow waaye fa ngay tàmmalee yar ba mooy nga tànnal ko wajur wu baax wajur woo xam ne wajur wu am diine la wajur wu am lislaam la wajur woo xam ne wu ci ni ko suñu Boroom subhanahu wa taala bëggee noonu la mel ki nga xam ne dafa bëgg wut jigéen te mu wut jigéen joo xam ne jigéen ji nekk l'école la ñeel doomam waaye ñeel mboolem jullit ñi kooku jigéen ja nga xam ne moom lay wute ngir jigéen ji mel noonu dafa am euh, ay melokaan woo xam ne yooyee lanu taamu ci jigéen ja ndax euh, jigéen moom du caagi nekk koo ci jël rek mu nekk sa soxna man la indil njaboot gu baax déedéet dafa am ay melokaan yun ci taamu euh, yoo xam ne yu rafet la am ci yoo xam ne yun ci taamut la yoo xam yoo xam ne saay boo ko gisee ci jigéen rek man nga ko daal di moytandiku bu nu delluwaatee ci xadis boo xam ne abu hurayrata moo ko nettali mu wax ne jële nañ ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu wax ne jigéen des na ko takk ci ñeenti melokaan wala des na ko takk ci ñeenti yëf tunkahul mar'atu li arba'in li maaliha wa li xasabiha wa li jamaaliha wali diiniha wasbar bi zaati diin taribat yataak jigéen des na ko takk ngir mooy des na ko takk ngir ne kii may takk dafa am alal des na ko takk ngir ne kii may takk dafa bokk ci askan wu baax des na ko takk ngir ne kii may takk dafa am ab taar des na ko takk itam ngir ne kii may takk dafa doon koo xam ne ku am diine la lan ci gën a nag mooy ka nga xam ne mooy ki am diine loolu moo tax mu ne fasbar bi zaati diin taribat yada jigéen mën nga koo takk te xawloo ci moom lenn lu dul ni dafa am alal tax nga takk ko mën nga ko takk tam xawloo moom lenn aw askanam dafa baax mën nga ko takk itam xawloo ci moom lenn lu dul ni dafa doon koo xam ne ku am taar la man nga ko takk itam xuloo ci moom lenn lu dul ne kii dafa doon ko am diine loolu nag mooy lim ci gën a taamu nga gis ne jigéen ji nga xam ne danga koo takk ngir alal alal ci mën koo bewloo ki nga xam ne danga koo takk itam ngir askan wu baax mën naa juddu ci askan wu baax waaye nag jaaralewu du ko fu baax bu dikkee itam askan wu nga xam ne fa la jóge mën nga koo takk ngir taar du yàgg dara taal ba taar ba wàññeeku wala taar ba wala sax taar ba dem waaye nag jigéen ji nga xam ne danga ko takk ngir diine kooku mooy ki nga xam ne mooy ki jariñu dëgg dëgg dëgg ndax diine moom ki nga xam danga koo takk te diine tax nga takk ko kooku moom du yàgg ma nga gis ca ak wàññi ko ndax diine moom ki am diine moom digg dëgg dëgg diine mooy ki nga xam ne mooy almaratu saalihatu ki yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wax ne addunya mataaun wa xayri mataa'iha wa xayru mataa'iha bépp marchandise la marchandise mi ci gën a seer mi ci gën gànjaru mooy jigéen ju baax kon jigéen ji jigéen yi ni takk ba ci gën a suufe mooy ki nga xam ne dafa am alal rek te amul diine wala mu am askan wu baax te amul diine wala mu am ab taar te amul diine kenn ku ci nekk boo ko takkee suñ borom mën la dimbali nga def ca moom diine waaye jigéen ci ci topp mooy ki nga xam ne suñ borom daf ko def mu nekk koo xam ne ko am alal la ba pare am diine ka ca teg mooy ki nga xam ne dafa am askan wu baax te am diine ka ca mooy ki am ab taar te am diine kon eh, ñett ñooñu ko ci takk rek kooku itam mën na dugg ci almaratu salihatu waaye boo gisee mu wax ne fasdar bi zaati diin diine nag man nga am diine eh, diine ñaar la man nga ne kii dama ko takk ngir dafa am diine masalan ab jullit la tax ma takk ko man ngaa nekk jullit te fonko sa diine man te fonkoo sa diine kooku itam des na ko tudde borom diine waaye ki tax ñuy wax borom diine dëgg-dëgg ki nga xam ne moo nekk ab jullit ba pare fonk diineem fonk euh, lu ci mel ni ay wàllu julleem ay wàllu koor azaka ak yëpp yoo xam ne moo ko moo ko war ci wàll diin ak yi nga xam ne sax ay mandubaat la yu sax yu du ko kooku mooy ki nga xam ne mooy ki am digg digg digg diine waaye du caagin naa ko am diine kii ab jullit la waaye nekk jullit bu sàggan naam kooku nag baax na waaye nag ka ci ëpp solo kën ci gën a tam mooy ki am ki nekk ab jullit ba pare farlu lool ci wàllu diineem nga gis ne taaru baax na lool ci jigéen nag waaye nag dafa am taar bu ci gën mooy taaru jikko taar ci jëmm baax na lool dafa am taar bu ci gën mooy taaru jikko taarub jikko mooy taar bi nga xam ne moom la Sëriñ Tuubaa doon wax ne in tuxsinal baatina doonama zahar tasdaadu bi xayri zinatin istu'tabar wa man yakun li sirril xalbi musliha tasluha ala niyatuhu fa yufliha Eh, taaru ci jëmm baax na lool waaye la ci mooy taaru ci ci xool ndax bu fekkee da ngaa defar sa jëmm rek jëmm ja taaru te xool bi taaru loolu amul solo saay boo defaree sa xol ba mu taaru bu yàggee sax sa jëmm day taaru ko dina jàkk xam ne kii am na taaru xol am na taaru jëmm waaye am na taaru xol loolu mooy toxsinal baatina doona wa zahr tazdaanu bi xayri zinatin istotabat wa man yakun li sirril xalbi musliha taslux alaniyatuhu fa yufliha koo xam ne ittewoo taaru sa xol moo la bu yàggee rek sa jëmmoo day taaru ko la ne jàkk xam ne kee moom aji texe moo nekk ne euh, taaru jigéen baax na am na ku ma si dikk ci yonente bi dama gis fee jigéen ci rafet lool ma bëgg koo takk waaye nag moom bokkul ci jigéen ñi nga xam ne jigéen ñu mën a am doom lanu yonent bi noppi tàngamlu ko mu dellu waxaat ko mu tàngamlu ko mu dellu waxaat ko mu ne ko tanaakahu tanaasalu fa inni mukaasir bikumul humuum dem leen takk jigéen ñi nga xam ne ñoom danañ am doom ndax ëllëg yawmal qiyaam damay puukare woo sama mox sama xeet kon taar ci jigéen baax na loolu waaye la ci ëpp mooy taaru ci jikko te mooy ba bi zaati diin taribat yadaak kon yow mi dugg ci jigéen da ngay dig bu baax li alquran karim wax wal baladu tayyibu yaxruju nabatuhu boo ko defee da ngay xool jigéen joo xam ne jigéen la ju teey xam ne yar na ak njabootam ci diine lislaam ñu am diine lislaam kooku boo ci duggee ëllëgati si biir bu la bu la bu indilee doom doom ji dana nekk al baladu tayyibu waaye boo demee ca safaan ba safaan ba mooy safaan ba wallazi yaxruju wallazi xabasu la yaxruju illa nakida kon daal jigéen a ngi noonu boo koy tan tànnal ku baax koo xam ne ni alquran waxe jigéen ju baax moo la indil njaboot ju baax waaye tam xoolal ci ñent yi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ko ci moom la taamu ci jigéen mooy alal ak askan ak taar alal baax na lool aw askan baax na lool ab taar itam baax na lool waaye la ci ëpp solo mooy mooy diine kon eh, ki am alal ki am alal te am diine kooku baax na eh, wala nga ne am ki nga xam ne sax alal rekk la am waaye amul diine kooku it baax na ndax mën nga ko indi def moom ki nga xam ne askan wi rekk moo rafet waaye amul diine kooku itam baax na ndax mën nga ko indi def ci moom diine ki nga xam ne itam ab taar rek moo nekk ci moom kooku itam baax na ndax mën nga koo jël def ci moom diine waaye nag ka ci gën mooy ki am alal am diine ka ci tegu mooy ki am taar ki am askan am diine ka ci tegu mooy ki nga xam ne dafa am taar am diine waaye yooyu yëpp nag moom mooy ka nga xam ne diine moom moo la léppam moo la léppam fasbar bi zaati diin tarifat yataay koo xam ne jël nga borom diine daal Euh, am nga texeeg addina am nga texeeg àlaxira ndax euh, euh, wa gayri madaaiha al maratu salihatu kon insha allah taala foofu la ñuy taxaw bu bu dikkaate ne dugg ci alamatu al maratu salihatu mandargay jigéen ju baax naka lay mel insha allah taala kon foofu la ñuy taxalu di ñaan suñu borom defal ñu ak digg ak ak topp si war وسيلة لو وجهت نحوها كل الورى حار رام الورى نيل فضل مسرعين لعو والفضل عند رسول الله قرار